ay fajkat lañu ñu boole ci kuréel gi ñu assistance médicale seen yitte mooy dimbali talibé yi ñëw màggal ci seen gu yaram docteur Daouda kenn la ci ñoom. ñun bi directive Touba assistance médicale Touba assistance médicale nak boo ko déggee dafa nekk ay xam médecin wala amna sax ño xamantene ne duñu personnel de santé ñi ngi ci biir euh, ñu mu doon mbolo mo xamantene depuis 2001 ñi ngi fi te it chaque at mo xam magal Touba ak lu meunti doon dañuy bok ci ñi nga xamantene ne fajj ren nak particularité bi ni nga waxe moy mooy mi te it señ bi joxe ci ndigal ba pare mettre en place ben comité muy comité bo xamantene ne saytu moy saytu walu wér yaram gi ak ñi nga xamante xeyna ñort nañ ci ñom ne am nañ feebar bi ci nonu nak ci la lancer appel boole ci Touba assistance médicale. lu tollu ak fukki groupe ñu formé ko tasaare ci biir Touba di assister secourir ak kit maye ay kit de prévention ngir taxawu yile talibé. plus de 10 équipes yo xamante ne ngi ci biir Touba ñun ñu bok ci équipe bi nga xamante ñun lañ indi fi bi ñuy ñëw it indi nañ suñuy matériel boo xoolee lii bokk na ci kit yi nga xamante ne nii Touba Sens Médical defar na ko mu doon ay gel ak masque lii boo ko gisee da ngay xam ne pour prévention la kon day joué njëkk ci prévention bi beneen bi si topp tamit ñu indaale suñuy médicament bu ko defee nga xam ne bu nit ki amee ak tawat mënees na ko cee faj te infirmerie boo xoolee ni mu bindoo da ngay xam ne cas urgent moo ko tax a jóg ñi nga xam ne dañuy ñëw ci jumaa ji xëy na yàlla suñu borom nattoo leen ab feebar daaneel leen fi bu ñu fi ñëwee bu buñ leen saytoo ñu gis ne mën nañ leen a faj ak ay comprimés ñu jox leen ñu dem su dee dañoo gis ne ñu ñor hospitaliser leen dinañ am ay dispositifs pour mën leen féetee ba seen yaram mën koo nanguwaat ñu mën leen a bàyyi ñu dem. fileek bi ñu tàmbalee liggéey bi ci wàccaayu màggal gi nag donte dafa tombe ak feebaru coronavirus bi docteur Daouda Niang di xamle ni lu weesu ay cas de fièvre ak rhume ak fatiguement gisaguñu kenn ku ci présenté ay symptômes feebar bile. macha allah bi ñu bi ñu tàmbalee ba léegi amaguñ ci cas suspect. waaw loolu ñu naan cas suspect amaguñ ko fi te jàpp naa ne ndigal li nga xam ne sëñ bi joxe na ko it ndongo yi ñu ngi ci jéem lu ñu mën muy sol masque te boo gisee kuy dugg ci jumaa ji tamit ñu ngi lay jox gel antiseptique waaw ñun tamit nous ne sommes pas en reste parce que yoon nañ suñuy kit ku ñëwit dinañ la si dinañ la si jàppale bu ko defee loolu nga xamante ne moom lañ ci doon ragal te sëñ bi tamit joxe ci ndigal ngir ñu saytu ko loolu suñu borom ba léegi nii taw feexal nañu ci ñun boog ñi xam ne ñoo nekk ci infirmerie bi amaguñ ci ay cas te ñoo ngi yàlla mu wëyee noonu ba màggal gi jeex Euh, équipe yoo xam ne Touba Assistance Médicale teg na ko en place déggaguñ ci équipe boo xamante ne am nga ci cas cas corona. donc liñ fiy jot a am mooy ay xeetu rhume te dinañ xool bu baax ba xam ne nekkul corona ndax dañoo xaw a jege ay xeetu rhume lañ fiy am ay xeetu fatiguement ak yooyu noonu wala ay bopp yu métti ak yooyu. yooyu ay cas yi simple la yoo xamante ne traitement symptomatique dina ko mën a gérer. ñii la di docteur yi taxaw tem ngir wëyal ndigalu sëriñ bi te it taxawu yi. liggéey bi nag ñu bokk ko ak ndaw yi la ci kuréel gi ñu duppee mu xadimatul xidma